Pape Alé Niang. buñ koy buñ koy musuma ko wax buñ koy jéem a empoisonné. waaw waaw ko wax. yow raconté ko Pape Alé Niang dégg parce que man musuma wax ak Pape Alé Niang musu ñu seq salaamaaleykum léegi ko fii Pape Alé Niang dégg direct. kooku moo ëpp chance ci Sénégal pourquoi. Hmm. Euh, ko fekk collé bi léegi l' assurance s'appelle Alliance dafa collé woon ak benn assurance mhm. mais jour bi koy gars a mhm. euh, la pauvre y avait Pape Alé avait un de ses amis et y avait qui. à côté assis y avait Kebs qui am assise à côté et y avait Mayak. Kebs Thiam et Mbayang ñoom ñu ngi toog foofu quoi. ñoo toogoon ci wetam xamuñu ñoom xamuñu nu mu demee seen yoon nekku ci. Hmm. seen yoon nekku ci le problème c'est que Pape Alé table bi mu toog comme te ñooñu lañ ko yëpp kenn ñoom ci ñaari jigéen yi lekk kenn ki manqué verre jël verre Pape Alé table Pape Alé y avait trois verres or il devait y mu jël verre bu bon bi la jël jox ko Mbayang tayu ko daf ko dem dimbali rek Mbayang nag moo naan verre boobu Mbayang boobu nekk. Euh, Mbaye dafa bëggoon naan mu ne Pape Alé Niang jottali ma verre Pape Alé Niang jël verre ma ndakate boobu lañ empoisonné. Eh, eh, eh, Pape Pape Alé jottaliwul verre bi. képp sa moo jël verre bi jox ko ko xamul xamul xamul lu mu demee fekk wul ci hmm. hmm? moo jël verre bi Mbaye moo soxla woon naan lan la bëggoon naan. waaw waaw non dañ fa tegoon bisaab lañ fa tegoon je sais pas je me rappelle même pas sa date. sa date. Hmm. mu te moom mu te képp sa jël verre jël ci verre Pape jël verre bi jox ko Mbaye moo ko naan. naa ne ba léegi laaj ko na moo moo moo jël verre boobu utilisé ko te verre boobu il y en avait pas beaucoup parce que ndaw si dem servi dafa perte sa waay. mais dégg naa Mbaye boobu dafa feebar de. Mbaye boobu elle est gravement malade. waaw oh, ah, la ko waxee kañ la. yàgg nga wax nga wax ko de lii musuma ko raconté nag. tout seulement nga day fontu. kon Pape Alé Niang gars yi dañ ko bëggoon empoisonné quoi far mu Mbaye naan verre ba. moom mooy moom mooy. Hmm, hmm. tey père macha allah quoi man man man xam naa la xam nga man xam nga man père xam naa la gis naa sa photo gis naa sa vidéo gis naa lëpp lépp lépp xam naa yaa ngi ci au cœur du système donc loolu moo tax boo boo demee ba may wax loolu ma wax parce que xam naa carrément ki nga doon ñoom nag dañ laa xamul moo tax bu ma ñëwee ci lag nga ma wax wax leen ko ñenn ñi di hésité. waa APR di ci profité naa waaye génneel li génneel nangam pour mais dañ laa xamul yow ñoom xamuñu la.